dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo ubbil yéenekaay gii di réew mi quotidien mu xëy nag di wax ci dialogue national bi nga xamante ni jamono ji bu yàqoo bu mu bett kenn te nag su yàqu xaalis moo ko yàq ndax ak ñàkk déggoo ak ñi nga xam ne ñooy la pér jëm Assane Samb directeur publication réew mi quotidien xëy daal di ciy bind journal bi du l'observateur daal di wax ci faux médicament yi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall daat wax ne dana si def kem kàttanam ngir nag daal di koy xeex kër sëriñ bi bi ci di ñoom nag jamono ji daal nee na ñu fas yéene nañoo jàmmarloo ak Macky Sall tiita ñu benn yoon te ab loi sax bu ko fi voté ngir nag gën a taral daan loole du mujj fenn ndax ñoom nag Macky Sall mënut a tere daal ñuy jaay ay garab ndax nag ay citoyen laña su dee nag am na kenn koo xamante ni daal moo gën a mën a trafiquer ay faux médicament du kenn ku dul Macky Sall jaaykat yi nekk ci kër sëriñ bi ñoo ko xam xamle ndax nag nee nañu Macky Sall dafa daal di libéré mi nga xamante ni ñëpp foo faux médicament la ñi nga xam ne nag ay jaaykatu garab lañ te nekk ci kër sëriñ bi ci ndakaaru ñoom nag nee nañu daal gouvernement bu Sénégal ñooñee ñooy trafiquant yu mag yi bis bu yàlla sàkk ñu daal di njublang trian dëbb li njaa askanu Sénégal sàcc seeni milliards te du mujj fenn Macky Sall nag su dee am na lenn loo xam ne moom la war a lijjanti loole la war a dem lijjanti ji ko loolee nag du sunuy kàddu kàddu yi jaaykatu garab yi nga xam ne ñoo nekk ci kër sëriñ bi la Sénégal réew la moo xamante ni drogue bi ak yamba ji ni mu fiy jàbbaa jonge daal di Dakar yéen a kaay gii de la turbine moo ci xëy tey na réewum yamba cocaïne bu bari boo xamante ni jàpp nañ ko sa diiwaanu Ziguinchor lu toll ci benn tonne yamba boo xamante ni jàpp nañ ko ca diiwaanu Mbuur yéen a kaay gii di Vox mu ñu xamal naa ñu lu toll si ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent ci ay kilo yamba yoo xam ne teg nañu ko loxo ca diiwaanu Tamba journal bi mu ñu xamal naa ñu en tout cas li ambades mooy jamono ji drogue bi ak yamba ji ni muy jàbbaa jongee ci réewum Sénégal daa dinay doy wara yéen a kaay gii Libération ñu xëy fekk Abdou Mbow mi nga xamante ni nag ma ngi ci parti bi di APR moom daat nay xëy dal ci kaw Moustapha Diakhaté ba xolam sedd nee na Moustapha Diakhaté jamono ji wane na ne bokkatul ci biir parti bii di APR am na sañ-sañ nag daal di créer ab mouvement waaye nag du ci biir APR la koy daal di créer yéen kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal ñu Moustapha Diakhaté daal dinay créer Manko Taxawu Sunu APR yéen kaay gii di L'As mu ñu xamal ñu Moustapha Diakhaté jamono ji nag dafa fas yéenee jàmmarloo ak Macky Sall maanaam dànkaafu yi nga xamante ni ñoo ñëpp di wax ne dañu koy dàq ci parti bii di APR dafa mel ni dafa gën a xabtaloo Moustapha Diakhaté ñu ubbi yéen a kaay gii di la turbine mu ñuy xamal la ñu nag su noon am na benn trophée benn coupe boo xamante ni daal ci réewum senegal dañ koy jox koo xamante ni moo gën a deltuloo ginnaaw démocratie Macky Sall la ñu koy jox ndax Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade moo ko tane Macky Sall bi mu dikkee ci réewum Sénégal li nga xam ne mooy démocratie daf koo yàq yaxeeta li nga xam ne mooy àq ak yelleefu askan wi Macky Sall daal di koy salfaañe di jàpp Sénégal yi yi suba ngoon guddeeg bëccëg di leen yóbbu ci kaso bi te loolee tegewul fenn Macky Sall amul benn considération ci sénégalais yi maanaam wéegu leen ndax bi ñu ko laajee ci ñetteelu mandat bi li xam xamle nee na du wax waaw du wax déet loolee rek ak ñàkk respecté askanu Sénégal lay firnde la déception totale maanaam gàcce gu rëy ak mbetteel la askanu Sénégal ñu bëri am ci Macky Sall Sénégal yi jamono ji nag dañoo sonn ba maara day yi te nag dafa mel ni yitteelul njiitu réew mi dialogue politique bi nga xam ne moom lañ fi tekk du jur dara président boo xamante après l'indépendance am na nag aw doxalin woo xam ne moom la waroon a doxee waaye nag jamono jii ni nga xam ne moom lay doxee daal méngoowul ak li Sénégal yi doon xaar ci mooma am na sax ñenn ñoo xam ne jamono jii ñoo ngi wax ne Macky Sall dafa bëgg nag installer mbirum dictature ci réew mi yéen kaay gi de la moo ci xëy tey journal bi du source añu ubbi ko fekk fa nag waa Touba ñoom nag ñuy sàkku lu toll si ñetti commissariat ngir nag ñu daal di koy def ci biir Touba ndax nag gis nañ ne jamono ji ñàkku kaaraange ga daal daal dinay tar loola collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag nee nañu daal xoqatal xoqutal yi nga xamante ni moom la leen nguur gi di xoqutal du tax ñu deltu ginnaaw benn yoon séddale nag ay flyers yee askan wi ci lu jëm ci courant bi nga xamante ni dañu ko yokku loolee nag ci boppam amul kenn ku leen ko mën a tere ñoom nag nee ñu sax suba ci àllarba ji nag danañu daal di lancer flyers fépp nee nañu samedi bu jot nag réew mi yépp danañu fa wasaare li nga xam ne maanaam mooy ay flyers ba ci chambre à coucher yi ñoom nag nee daal xoqutal gi ci boppam la nguur gi war daal di bàyyi observateur mu ñu xamalal ñu collectif ñoo lànk ñoo bañ jamono ji nak dañoo mel ni ñu kaaniwu wala ñu poobaru ndax nag nee nañu sax dàq ñu benn yoon yóbbu police yi fa mbaxana doonee benn observateur mu ñu xamal nañu mari Teuw ñaan mi nga xamante ni moom lañ fi dénkoon ay jamono njàng mu kawe mi mbaadu nag dafa réeroo ak Macky Sall journal bii de l'observateur def na ci ab gëstu ci ay bëgg-bëggam jëm ci wàllum politique ak parti bi mu bëggoon a taxawal ak ministère bi ñu denk wàllum pêche ñu joxoon ko ko mu daal di koy gàntal ba tey mairie Saint-Louis bi nga xamante ni daal nay wax ne daf kaa daal bëgg te Mansour Faye nekk fa nekk nag magu sox soxna si njiitu réew mi yéen kaay gii di sunu làmb ñu fekk fa nag mbay cuun mi nga xam ne mooy manager tafatin la mu xamle ne nag combat bi nga xamante ni moom la ñuy laam-laamee diggante rëg-rëg ak tafatin nañu ko tàyyi ndax rëg-rëg tojul fenn